MC Solar, you're from my kind of family. assalamu alaikum africa assalamu alaikum Senegal, assalamu alaikum fula du pakaw balanta kounda mc solar salmini on sadio balde salmini on émission moɗon mo gandiranta alarba yo alarba à partir de 16 heures watta hannde kala min garsani on ɗo banta fula du banta ko banta moɗon ɗowdi ko ɗowdi moɗon inchallahu rabbi hannde kala min garsani on ɗo musidɓe mais han noon ko e e débat goɗɗo min gaddani on manam invité mo gandiranta kankalan mbo hay goro ɗaminanoki ko on kankalan han min gaddani on ɗo han débat o ko spécial han débat o woni hoɗum déjà débat o woni ko émigration clandestine ɗum woni manam Eh, gimmoroɓe ɗo ɓe ɓe jaha e ɗannoyro han ko on deba men gaddani on ɗo min e sadio balde inchallahu rabbi on calminama invité meɗen o inɗo meɗo de invité o raw mi ɗala raw eh, jaadijo am o nena goro baba goro am o makko kankalan mbo salmina on asalaamaaleykum Sénégal asalaamaaleykum Thiès ñu ngi nuyu ñëpp di leen sant di leen gërëm di commencé nuyu bi suñu maam Alassane Diallo ak waa këram yëpp kër nyu Thierno Mballo ñu ngi nuyu képp kilifa ku dëkk Thiès di nuyu ñëpp tamit parce que boo limee da ngay juum di nuyu borom kër gi di nuyu suñu invité bi Maodo di la nuyu naa la bisimilah suñu émission Bantouladou ok euh, musidɓe déjà on nani ha ah, doye ko sadio balde Haliko, vraiment euh, présentation o waɗi euh, weeɗi yooɗi vraiment feewi joni min kolla on déjà invité amen Johnny jooɗiɗo ɗo o makko ko inde makko déjà mi halanin, mais hattama kokal ngal mbo arta hen déjà voilà déjà makko inde makko nde ko asana balde hein, voilà asana balde ko étudiant déjà formation bts ɗo mbowatta ɗum nin ɗo politique ɗo lycée technique de thies ɗo de mi yawrude walla mi ɗumantinde lawol mi ɗala on rek makko on bonɗo jooɗi ha ah, voilà mbo présentation o mbo on golle makko ɗe a on calminama mo la foof inne mum yettode muɗum e, min ko asana asana balde ɓuura andirede mawɗo e étudient bts formation professionnelle lycée technique mo euh, thies e filiére o e, conduite et gestion d'une exploitation agricole woni ɓuura andirede cga euh, donc euh, mi ma min salamina mc e eh, caggal e eh, salminde mbolem pulla foof ko allah woni e eh, salminde kalifa amen ɗo e cerno cerno moussa mbaalo e kanko ni kalifa amen kanko ni ceerno amen kanko ni neoɗo amen o hande yii jodi men han ko sabu allah e makko sonno ɓe so lingu so yari yari diam e yari juubri diam tan no yettu allah e lawjodo ko rebe o donc dum no joni minen minen jetta allah minen jetta e cerno moussa mbaalo ke dum bo gandenta ko kañ e, ne'i amen holli amen ki laawol haa men jooɗii ɗo te hannde yewtoo nde machallah mc mi samina ɗum mbuyi mc solar e sadio sadio balde e camina kala nde directeur directeur ke dunia prestige prestige tv thies eyi mbo weltanaama te mo samina mbuyi wonaa seeɗa ok musidɓe prestige tv de thies e, on calminaama onon fof mbo kala ro waawi wonde si tawii ko europe gonɗaa han déjà hannde débat o ko onon goori ɗum woni ɗanniiɓe ɓee ko ce soit gona france eh, italie espagne états unis kala to mbawɗa wonde he aduna ne ko ko fuladu han débat spécialement pour onon godido. ɗum joni ko ɗum addi han on ɗo invité déjà eh, mo waɗi makko présentation makko on gandi ko horombo immori e ko sara moɗon nde fuladu ko horo wasa du fuladu ko kawne kawne marum andi kawne kawne wonno ko ancien ancienne qui eh, canton canton au chef de canton o ko demmonde mbaalo demmonde mbaalo imi, ari bayel bayel mbaalo bayel mbaalo imi non hawti canton hawri canton indépendance ari canton e gasi après nak e, ni sangi mbaalo nati e politique eyyi mo nati e politique non. noon sikku ala pullo mbo anda e gondo e kolda malla welingara mbo anda ki mo anda sangue Mon mbowoni ministre agriculture moni député dans la qui e, député mbo représenté au niveau de l'Assemblée nationale qui fouladou c'est à dire département département welingara kawne tawa ko commune e commune wasaɗu tawa donc déjà e eh, mi halnima han euh, déjà euh, débat o ko affaire dangal émission euh, clandestin a hein, ɗum mbiɗen nin ɗo déjà émigration clandestin joni mi premier am question komi landormani déjà hono jiiruɗa dan ngal manam hono jiiruɗa émigration clandestin o émigration clandestin ko hunde bande e bande débat muɗum o heewi aduna he par que a laari han

donc déjà musidɓe eh, réponse makko o laaɓi mbo haalni en hoɗon woni émigration clandestine manam hoɗon woni ɗanngal voilà donc euh, sadio a salminama an kalan suñu invité mbaangi ha ah. waaw waaw euh, man mam question bu ma lay laaj dama bëgg li nga wax ni sippal nga waxat ko ci olox ba paré ma poser la sama question. voilà donc parce que amna ñu ñuy seetaan té ñi nga xamante ne dégguñu pël. waaw kay dama bëgg ta pël yi kese seetaan ñu mom déjà dama ko né eh, émigration clandestine en fait lan moko waral donc lan moko waral déjà lan moy émigration clandestine donc déjà euh, question bi so ko mënee. avant tout may répondre ci question bi euh, ngeen wax mu wax ko ci olof kon sama olof mi ngay njéglu dina bolé touti ak français ah, pour mu meuna am corrélation am ngay comprendre quand même euh, olof pël fula do rek quand même ko comprendre. voilà man maa ngi tudd Assana Hassana Balde maa ngi jàng fi lycée technique de la formation professionnelle François javier Ndione Thiès. Euh, maa ngi def CGA mooy conduite et gestion des exploitations agricoles Mangi ngi ci sama deuxième année mooy euh, BTS donc euh, mangi ngi remercier d'abord sama sama proviseur bi ak suñu intendant ak suñu chef de coordination bi mooy monsieur Faye sama collègue yi ñëpp ñoom ñoo wax naa leen ñu ngi ci émission bi en <laughs> donc voilà donc immigration clandestine ngeen bi nga xam ne dafa dafa vaste débat bi bari na ci Afrique trop trop bari na ci monde entier bi euh, parce que coono bi moo ëpp euh, njëriñ bi euh, mooy coono bi coono bi mooy lan mooy am na ñu jógee Fuladu jóge Kolda fii jógee région bu ne Sénégal jël ay yoonu suuf bi di dem den gaal yi dem ba dugg Italie Europe mu ne immigration ci bu ñu eggee foofu coono boobu kenn du xamul fu mu fu mu toll ci fu mu toll ci ci àdduna am na ñuy faatu am na ñuy feebar tout récemment ça Euh, dafa daal de dafa kii quoi dafa dafa doy war trop donc euh, loolu suñu mission mooy lan stoppé stoppé ko lan la ñu war a def pour stoppé ko bokk na si nja bokk na si amélioration yi jàng mi ak am a diplôme professionnel boo xam ne nit bi mun na uti liggéey fii Sénégal mu réussir c'est possible euh, formation yi dafa formation yi dafa dafa bëri formation doo def rek boo génnee mun nga am liggéey maa nga dem entreprendre loolu kay moom se kii kii kii na quoi.

Eh, takay eh, problème moy ak eh, problème de jang janguñu néne dañuy dem ba seconde 3e amuñu ay diplôme buñu amul diplôme dal goor bu amul diplôme da bëgg tekki comme moromam bu mu tekki donc euh, le seul moyen li ñu am rek moy pour ñom joggé fofu dem dem dem tukki dem Europe sans autant sa mu jaar ci fuñu wara jaar pour am papier légal pour mëna mëna jël avion dem wa lool yépp dé ci lima gis mom bëgg bëgg sa réew la ak bëgg sa bop ak bëgg téral say wajur mo waral ku nekk di génn di dem pour wuti pour lo am yalla na yalla jappalé ñëpp euh man nak sama question ben lan la moy lan mo tax tamit euh wajur yi di bëgg di may ñi nga xamanteni ño génn di len may seeni doom ñi nga xamanteni ñu ngi ci dëkk bi di bay di di topato seeni wajur dañuy préfère ñi nga xamanteni ño génn daal ñu len di may seeni doom lol nak la lay laaj lu tax loolu. c'est-à-dire ban ban may lan extérieur wala fi ci Sénégal. extérieur même caisse même caisse sax ay Dakar mais lu upp rek ay extérieur moom ngay gëna gis dal ñu naan sama doom bi moodu moodu la koy may comme sa comme ça yow mi tay nga génn demone France sa sa sa nijaay mu ne domam yow la koy may ndax lu ndax. wa euh, wa lolu amna parce que lolu bo gisee lolu mu am euh, ba amné famille bo gisee famille bu aisée la amul ay moyens donc euh, tout le monde day ku ne amna yene pour domam tekki. Mm-hmm. pour doomam euh, ñu ne am na am na qu'est-ce qui est tellement luxe mm-hmm. pour ñoom euh, solution bi kese jox seen doom jël seen doom may ko ay kuy euh, ay ay moodu boodu bu leen fàtte amoon na benn jamono yu wees moodu boodu yi moodu boodu yi convoité c'est-à-dire ñu ñëpp Sénégal yëpp koo xam moodu moodu la rek bu ñu jëm yippisee rek teranga bu may lañu leen mooy li leen may mais instant bi rek affaire bi changé comme le monde est tellement nekk na village boo xam ne ñoom ñëpp si benn kër la ñu dëkk mm-hmm. Euh, déjà Sadio sa question bi man daf may fatali ibro italien ah. xam nga <laughs> ibro italien euh, moy jamono bobu la donc déjà euh, modou modou yi am parents yo xamantene vraiment ñoom il préfère que ah, may seen dom ko xamantene kaw la kaw la nek ko koo xamante ne nekk exact waye paré dañuy préférer ñi nga xamantene ñoo génn pour ñu mëna nek à l'aise te benn kër tamit luma lay laaj benn kër comme ça kenn dem tukki bëgg yor kër gi yëpp est-ce que kooku développement dina gaaw wala tamit mën na fa nekk Europe liggéey ba sonn lépp lu mu yónnee du ko gis parce que moom moom kese moo géré kër gi. xam nga ne famille africaine moo mel noonu famille africaine dafa dafa am loo xam ne yermande bokk na si ñoom boo gisee yàlla lu mu wax si alquran aljamu rahma la mooy euh, mbooloo euh, bokk na ci yermande yàlla yàlla bu fekkee day wàcc yermande ci mbooloo ci mbooloo la koy wàcce donc mbooloo mbooloo mbooloo du question bokk nii rek mooy mbooloo mbooloo mooy lan. dim di di mooy dimbalante mooy mooy mooy jàpp mooy jàppal mooy jàppalante donc souvent si kër boo gisee kenn tekki rek euh, kenn dem euh, tukki bu tekki mu ñëw jàppale neen ñi pour ñoom tamit mu a jóg am seen kii moyen euh, am mun a mun a mun a am lu mu xam ne mun nañ dund nice voilà mun a développer comme comme mais malheureusement au conséquent ñi koy utiliser eh, boo bu demee bu yónnee ak xaalis ma la envoyé quelque chose euh, ci ci ci ci ci famille ba am na ñu xam ne du ñu du ñu xalaat investir ma la def leneen. yeneen ñi dañuy yàq li ñuy def lii parce que man gis naa exemple yu bari. kuy yoni xale pour tabar kër yeneen ñi ñi fi nekk attaque bi maag jarbar bi lek xaalis bi yëpp te Modou Modou wala voilà kenn nekkul li moom mi ngi ci kaw kon moom moo war a gérer kër gi te loolu day metti maanaam daal ku nekk rek na nga jéem liggéey daal. alors quelles sont les causes et les conséquences que ça soit dans le côté positif wala négatif e hoɗum émigration clandestine o wallara en manam est ce que ɗangal ngal enen émigration clandestine. est ce que il n'a nafi fula Parce que ko makankalan andu ya ba e cumdi han bo kala ko waare mum nde ñippara d' accord euh, dakar d'accord, accord ok mais enen tamin euh, ko fula du kankalan kippuɗen mais est ce que han ɗangal carrément ɗi walla ɗi walla fula du ɗi walla leydi ndi walla ɗi yakka e walla han ni way ka fooɗanni yimɓeɓe ɓe jaɓaɗa émigré ni a pusatɓe nen hokkaɓe courage no ɓe mbaɗ émigré alors ko contexte o wona ɗum ko tampere nde ɓuuri hewde lorgo ngo ɓuuri hewde dal min ko bami wiide e jeriñ alaaron hay woodiron ham heewani par ce que kala ɗo jiiɗa hunde eh, e, e jogui côté négatif jogui côté positif kono a yiran côté négatif o ɓuri côté côté positif o ran yo andu hunde moƴƴani donc euh, ko moƴƴi ko ranno ɓante kono noon si ɓuri hewde ran moƴƴani e jeunesse o sur la jeunesse région kolda e fati tamba partout e sénégal kala ɗo wowi wonde o mbokkala foof no ero e larade moyen autorité ji ɗi balla balla yimɓeɓe ɓe jooɗoro maɓɓe ɓe mbawa wadde innovation ji wona projet ji no agriculture inan ɗo actuellement adno sénégal pi toɓa ceesto ceeso toɓarano rowan toɓiran ni hande ceesto si o waɗi guesa han kala ko mba fuuyi a yaltina hen goɗɗum e pour to a yeehi te fatik noon a yeehi dula goɗɗo noon noon noon te business goɗɗo kalan woodi e sénégal gana sa natti e muɗum man e a wawi wadde tekki ɗo e sénégal o ta a yaltan heydula a tampini a lorani hoorema a torani jinna e ma a torani a lorani jinna e ma to a lorani musidɓe maɗa ɓe ɗum iwa ɗum i wawi wonde c'est possible mais an jooni e, to sengo maaɗa an jooni an to sengo maaɗa e, tiye pour ou bien tiye contre manam an émigration sago maɗa émigration clandestine ko watte elmine walla ko ɗalte heureusement mi e, mi souvent mi au passage mi rewa ɗo mi haadora ɗum min souvent suis contre mi wona mi wonda kay émigration clandestine te mi wallara pokkiɗɗo wadde al clandestine par ce que min mi jogino engagement pamiwaɗa classe premiére kun kanne e, mi jogino e, grand am goro ko policier ɗo ceesɗomo wonno wiyete tidiane tidiane mbaalo e, mi waɗi mbo disde bimbo tidiane mi faala wadde immigration kalande balla kam kala somi yaha liby ensuite somi natta italie mais heureusement ko neɗɗo on wattota mo yiɗi kam à cent pour cent jinnoɗo kam à cent pour cent yinno kam wallude e mbo wiɗe kam conseillé mboy kam yo hoko woni probléme maɗa o eyi kalam mbo caɗele am ɗe ha paari mboy kam noon no ɗum mi faddintoma ɗum mi wallatma hen jaa continue étudie maɗa ɗi parce que wona walde ana waɗa exclure wona walde ano faible niveau non non ko jusque un problème de moyen tagui mbiɗa yahannin hokkama kalis ɗum kaalima mi mami o rek min wala ma hen ha bada ke jande ma nde de kiɗo de wada avancer min kala automatiquement juste mi mbimo ha mi wada haalat mi miijo par ce que jeya miijimi tawmi komo haali ko gonga e continue mi jandem nde ha après le bac e mi concours cga bammi reti mi waɗa formation waɗa formation ammo ok <laughs> musidɓe fulɓe on nani mawɗo yo ko makko ce qui veut dire que mawɗo si wonno président han déjà émigration wottano mais mawɗo <laughs> mawɗo woodi émigré ji ɗi gandiranta maɓɓe ɓuri jooɗiɓe ɗe fula to kaltidiren gon andu hunde yo ɗi jogui point négatif mais ɗi jogui point positif par ce que han mi faami ko kalɗa ko mais han ayi yimɓeɓe ɗi mbaɗa émigré han yimɓeɓe ɗi jaaha ɗangal han c'est par ce que koɓe keɓani koɓe paala ko ɗo nder maɓɓe hoole par ce que aɗa jogii ɗo galle maɗa aɗa jogii lamɗam e kaalda e jimbo e hunde yo hunde ha a toroyrako ɗum goɗɗo mais mawɗo si a ala han ko ma toroyoɗa goɗɗo hoɗum ɓuuri mettude han jiya probléme jiya nene e nawna a ala kaalay ko ñawnamo baba e nawna ala kaalay ko ñawnamo a ɗaɓɓi golle sénégal foof a heɓani mawɗa wuɗɗara ɗaɓɓoya voilà ko mbiɗa ko manalde contrôle on waɗi contrat cent pour cent émigration a waɗa émigré mais no wonta a yeehe lawol ko émira clandestine immoɗa jeeya attend attend immoɗa jeeya nayi baaba ma ba laari hen itara neɗɗo kolda ha libi natta espagne est ce que mo ñambana ko wori 500 mille 500 mille maɗa o micro projet ana wawi ɗum wadde mbaɗa réussir 400 mille franc wawi mo wadde investir mbaɗa réussir sénégal ɗo mais kono jeeya nayi baaba ma haaɗi kuuba malla jo demnoɗa e dumala ko 300 mille ɓagal ngal jaha jaaha libi a yetti a yetti maro noon ana nelde an kalis goɗɗo tuma nattoyra europe an ta api a maayi a ñaami 1 million e ko fawi mayu maya e laawol ɗalda caɗele musidɓe maɗa ɓe a ñaami jawɗele maɓɓe a ñaami kalisaji maɓɓe a waɗani tekki te ɓe perdima an o kankalan hoɗum musde tout sama boyan, hay une semaine forani mbo saare mandu wiiri Si si a faami mbo sankima libi mbo mayi te kombo maayiron ko est ce que mbo arsira mbo arsiraka moyen par ce que ɗum illégalement mbo waɗi comment des immigration ilegal mbo yari. c' est à dire kala clandestine fewani yawani ɗo fo rewde ɗo mboya mboɗa ɓa papier ji au niveau de ambassade mbo oké visa makko o ha mbo bie avis makko mboɗa mboɗa voyage ta mbo wawi acceɓe six jours mbo gandinata euh, deux ans mbo liggo mbo arsa mbo lasa fayi mabɓe o fami bala on on ɗon sankima libi mbo sankima libi mbo arsidaka te forino mabɓe wulure woɓɓe perdri hen rewɓe mumen sa rewɓe mabɓe ɓeɓe ñakkiri ɗumen noon ɓe jahilli bi ɓe ɗaɓɓidaɓe eh, ha pari ɓe heɓani joɗɗinde siraɓe biɓe yo joni mi paala joɗɗina mboyo mboyo no debbo fambo ha mbo arsa malla joɗɗine heɓawam siraɓe caloɗo nangude mbiyama joni mini min gokkiran ni yambik ala mbo wawara arsude par ce que ma mbo yamira mbo be ɓeɓɓe jamira doole maɓɓe tasa noon ta alors ko taare to yidde yawi lamru ki ete la mbo yiɗɗi debbo makko debbo makko yiɗi kono kontes gonɗo mbo wawra arsude e, est ce que mo wara arsude te ko malliranin ko wona ima innon fori ayi joni mo perdi debbo makko allah andi homo yawra walla mo yawrara est ce comprend ɗi picca ɗin toon te woɓɓe nangguere lappe est ce comprend par ce que correspondant amen heccanki o e ɓawa hanke momin kaldanno on mbo ɗumantine on certain moustapha diallo ɗo mbo ñanna o woni diɓi on tan on e haalna men ɗum caɗele gonɗe woɓɓe nangguere police nangumen lippa coka kaso est ce comprend da ɓe loraɓe lepta ɓe lepte lepte kulɓinide te dalle net internet e facebook a yeehi a yii han a ndarata ɗum pi i woodi e nder émigrant clandise donc wona wona hunde battede encouragé wona hunde baɗode enrichir neɗɗo wona hunde baɗode ɗumanti neɗɗo ko haragol wonin ko mami heeɓi ko mami maayi donc mi heɓa mami maaya ɗum won toon donc kala ɗo jiiɗa mi heɓa mami maaya rek donc ɗum ɗum ɗum ɗum ɗo moƴani alors que si ana ɗo kalis mo jogui ɗa o 400 mille franc hay moto jarka ja, moto a soodi ɗum ma a wawa awa wadde avancé a wawde avancé 400 mille franc 500 mille franc a wawa wadde micro micro projet micro micro jardinage mbaɗa petit à petit jaaha hunde ala ko jiiɗa rek ari tan heeɓi arimi la goro hay o jooma télé ɗo so a lanndimamo tan est ce que ma so a lanndimamo mbo arama yo wona ɗum mo immakiram waɗini mais woɗɗum rewi neɗɗo woda dewara mbaɗani jaaha escalier ha ha jotta jot poɗɗa yottani ɗo kono wona gimɓoɗa mbiya arimi pap enen ɓooyi mawɓe fulɓe ɓooyi wiide artike garɗo wirib gooro aynakema ɓooyra duuɓi donc kala mbo jiiɗa no a ñaago artike mais no ardu seeɗa seeɗa ganda kam ndewnaɗu kono émigration wona ko watte clandestin wona ko watte encouragé non non non non ko ala ko naɓita yeeso par ce que maayoɓe ɓuuri heewde so a laari han tout récemment mi yahito mi yahi mi yehi kawne village mais mi yehiron ko barke se ko tijani kalnam mami nin kode sukaɓe kewani toon ngalaron goreɓe amɓe fof ɓe ganni po hay goro alaron ko wona mbo exote rural yo comme comme immigration clandestine te partout et eh, on e wona kawneran wona gosa duran partout et eh, sénégal kala jiiɗi em ko piko pikone wayi jeunesse heew ala hen piiɓe piiɓe jalti hokko tagui ɗum alors to meɗen eh, beaucoup de choses. attends beaucoup de chose in toon gandanta neɗɗo a waɗi wadde a waɗ ɗumen wadde mbaɗa teki wawi won si ɓe ballama han kam par ce que juste il y a une part de la société il y a une part aussi des, autorités mais jogui autorité jogui part mumen

ah di dem euh, falé moy di Espagne que ça soit France wala États-Unis c'est parce que tamit liñu wara am fini dañ ko fee amul par exemple tey ni pour man euh, gouvernement bi tamit ils ont une part de responsabilité parce que tey ni bo boo sa galé bu fekkente ni yow. Euh, lu bari wa wa non dama koy léralal déjà comme ça après mom mu gëna ki par exemple dama la ne tey jii bu fekkente ni li nga wara am Sénégal amoko yow amo amoo hein ah déjà lu bari amoko est-ce que c'est pas une raison pour yow nga quitter fii nii nga dem donc est-ce que loolu tamit si yow la wala si gouvernement bi la. Euh, les responsabilités li ma wax rek sont partagées euh, mu ngi si gouvernement bi mu société parce que boo gisee boo déggee gouvernement rek société la boo déggee société gouvernement donc gouvernement mënul nekk gi euh, sans la société société mënul nekk sans gouvernement donc gouvernement moo xam ne ñoo ñoo jiite rek moo régulariser c'est-à-dire des ordres moo ordonné euh, pour que bi nekk à nekk à l'aise gars yi nekk à nekk de bon de bonnes conditions quoi est-ce que vous boo gisee loolu moo pourquoi mu wax ko c'est partagé parce que juste euh, zone bu amee projet man la mu am benn idée projet rek

am nañ seen idée bopp c'est mënuñu dem parce que xam am xamuñu fan la ñu war a jaar est-ce pour ñu pour ñu jot euh, ay quelque dimbal ci gouvernement bi ma soit ci ci ci privé yi pour ñu def benn monter benn projet réussir am na ñu bari bari nañu am na ñu xam ne jàng nañu def nañu seen formation am na seen diplôme ci ñu ngi toog xamuñu lan la ñuy def est-ce que gis ku def droit ba pare jogat nga gis ko mu ngi mu bàyyi mu bàyyi licence am du droit bi mu defat benn concours pour mu am diplôme professionnel si agriculture mu dem top ko ba mu réussir lolou ñàkk ñàkk de ki la quoi bu amé euh, ñàkk de am am emploi la. est-ce que yenen ñi. wala euh, ak ak ña voilà ak ak yooyu yëpp. la l'essentiel ku ma mën a delluwaat ci li ma waxoon ci pulaar rek. est-ce que comprendre immigration ken du ko en clandestine kenn du ko encouragé. lu xamné lo xamné dañ koy encourager non baaxul baaxul tey baaxul suba. parce que lu boo gisee eh, lu bon rek moo fi moo moo fi am man gis naa ñi bari ñu xam ne sa man teg naa leen bët dëgg naa yeneen ñi ay sama mbokk lañu leneen yeneen ñi ay sama xarit lañu. Mm-hmm. est-ce que comprendre jóge nañu jóge dëkk dëkk ba dem itali daje ay coono bu kenn du xamul amoon am naa benn xarit kooku instant dugg na mu ngi Italie mm-hmm. est-ce def na def na un mois ci àll bi ci ndox ndox kese amuñu fu ñuy fanaan ci garab yi lañuy ñuy fanaan. man de am naa si ñetti xale yu ma yoroon suñu kër ñoom si yoonu suuf si lañ jaar mais léegi ñu ngi itali noonu la ñu yàggee Libi lu ne daj nañ ko fa te ñoom Gambie lañ dëkk mais noonu lañ jaaree dem loolu coono la da ngay rey jeunesse bi rek. man li ma ñaan rek état bi fekkee état bi mu ngi taxaw si xeexal loolu nag nañu jàppale jeune jeune bi parce que Sénégal boo gisee jeunesse bi jeune bi jeune yi ñoo ëpp est-ce comprendre jeune yi ñoo ëpp. dañu bari la jeunesse euh, sha allah na mm-hmm. leen yàlla dundalal euh, dàkkal leen feebar febar ni mm-hmm. senegal yëpp am jam lu rek lañ ñaan mm-hmm. ah, parce que nit bo amé santé rek euh, ma sha allah lépp loo moom bëgg a jot dañ koy dañ koy donc l'état taxa état bi na taxaw ci jàppale jeune yi ko lu ñuy jàppale rek waaw clandestin mom dafa metti waye nak bëgg am rek mo tax ku ne di sonn bu ñu sañoon dañuy tok lepp fekk ci len fi waye tamit nit nga baña xép li nga am comme ni mu ko waxee rek boo amee 500000 yi ngay yàq si yoon bi boo ko jëlee nga def sa projet di nga avancé man loolu laa gis. si mais problème Afrique mooy euh, Sadio tey jii di nga am sa 500000 francs déjà doo xam loo koy foo koy dugal déjà ah parce que loolu loolu moo fi am na ñoo xamante ne am nañu fi am nañu fi 400000 francs mais tey par ma jox exemple tey jii boo amee sa 400000 francs nga dem jëndee ko Jakarta par exemple nga gaare ko sa buntu gàll ñu sàcc yóbbu wala ah, ah chaque jour ngay dakkante ak policier yi. comprendre nga wala nga jël 400000 boobu noonu nga ne xaaral ma def fi benn table comprendre nga nga def table boobu noonu dara du dox comprendre nga donc te 400000 boobu boo ko utilisé woon tamit dem ah parce que tey jii tam qu'on se dise la vérité am na ñoo xamante ne tamit yoonu suuf fii lañ jël mais quand même tekki nañu. dem nañu ba tamit yóbbu seen i mbokk ñëpp dem franchement loolu tamit côté positif la donc man li ma lay laaj mooy euh, euh, Maodo yow euh, émigration bi. nan lañuy def comme que yow da nga ne yow ja loo xamante la jarul encouragé léegi yow lan lañ war a def pour émigration bañ a am ah loolu kay moom euh, non bari na parce que yow déjà bari na man man li ma li ma wax pour euh, concernant sama commune bi commune de Wassadou comme créw euh, loolu laa doon wa Wassadou mu ngi mu ngi dëkk département Vélingara région de Kolda la ay eh, arrondissement de Pakour la bo déggee arrondissement Pakour la trois communes la moy Parumba fi nga dë foofu nga dëkk. voilà commune de commune commune de Jalaja, commune de Jalaja, commune de Pakour et commune de Wasadou donc man Wasadou la dëkk donc bu fekkee damay xeex de qui, Pàccana yëpp lay xeexal fa ngi Pàccana boo dindon ko kii boo dindoon communes yi Pàccana dina revenir fumu mu nekkoon rek capital bi nekkaat Kaolack. dem mën ne mbaalo foofu la ne woon moo dirigé woon canton bi ñëw kii euh, Bayel ke Bayel mbaalo kooku dirigé na ko Sange mbaaloo ki indépendance bu amee Sange Mballo dugg na si politique sénégalais yi ñëpp amul ku ko xamul. Sange Mballo nit ku baax la woon liggéeyal na Sénégal liggéeyal na réewam liggéeyal na département Vélingara liggéeyal na région région de Kolda nekk na di nekk na député nekk na euh, comment euh, ministre de l' agriculture et l' élevage à temps Abdou est-ce comprendre donc man buma ma may wax rek sama manginya, bi la sama dekk bi la wax ma ngi ñaan ma ngi ñaan suñu maire yi ma ngi leen di encourager ñom eh, di fexé dem sen politique am nañu katan am nañu am nañu katan am nañu mayen bi am nañu les idées am nañu eh, ki eh, mun mun nyu nañu waxtan ak autorité yi ba ñom ñu indil ñu loo xamné mun nañu yoku comment dirais développement loo xamné nyu lan amuñu tali yi bax bo gisé tout récemment bo démé entre Kaune Misira nga dem Misira pour nga dem eh, Saare ci Mintan ba nga dugg eh, attends attends pour nga dugg pour nga dugg Saare ci Mintan nga dem Mampati mo amne ne côté bob mo gëna jige Kolda teru ngay viré ni côté mo gëna jige Kolda pont la eh, <laughs> non dama dama ben itir itinéraire la ko itinéraire bi lay wax rek yoon bi esson bobu bu amone bobu bu amone tag rek bobu bu amé tag rek euh. oui ma bobu amé tag rek est ce comprendre masha allah transport bi transport bi dina dina permettre ñi bari est-ce am ay emploi am ke jënd ay auto mëna def transport est-ce comprendre té bu ke bu amé marchandise boo xam ay ay légumes pour nga jaay ko Kolda dina dina gaaw dina permettre nga écouler ko à temps baña pourrir baña baña yakku bañ tali bi mun ko pont bi sax gaay def na pont bi xamna pont artificiel la moy lan pont bo xamné ay ay bantu ki bambu lañ ko défar suñu wa village

le président Macky Sall mu mu mu defaral ñu pont bi indi ñu courant suñu dëkk amuñu courant parce que bu fekkee dëkk bu amul courant du mun a avancer du mun a am développement donc lu ñu ñaan rek courant ak ndox bu baax ak euh, comme ak infrastructure ak ak tali hôpital am nañ ko macha allah gars yi ils sont équipés les postes de santé loolu kam loolu kam moom man bu liggéey wax ko liggéey na les postes de santé bu nekk kaw ne ba gis naa à chaque moment bu ma demee gars yi di jël ay ot comment des ay moto di dem Vélingara di indi ay ay indi ay garab té infirmier bu xamné ne am expérience koku mo fi nek ñannaaw kazalika wasadu kazalika donc euh, trois communes bu amé euh, trois districts bu xamné fonctionne normal normale am nañ de bon de de de bon médecin comme de bon infirmier rek lolu kam moo alhamdulilah ñu koy santé ñu koy gërëm est-ce que li ci des courant bi rek ak tali yi loolu ñaar pour développement pour ñu stopper pour ñu stopper bu fekké dañu bëgg a stopper immigration loolu bu amé rek dinañ ko stopper. ah ah kon yéen kon ah kon Ziguinchor ñoom tali bi defar nañ ko bi nga xamante ne Kolda la juggé defar nañ ko kon yéen lañ fàtte da ngeen a sori moo tax mais xam nga man <laughs> min mi xaala han min mi xaala han mi fula du fop déjà wona wi saare maɗa nde rek mi faala bi a anti enen pi enen gandi wolde fula du kallu en ngala kalluji a faami kalluji mom ko zéro surtout wattu ko dungu wona dewe diyam ɗe aɗa anndi dewe diyam ɗe won yo ñabbuli in heen palle dusmi en hoole huɓara heen déjà en ngala golle en ngala emploi en ngala taliji dispensaire ji men ɗi moƴƴani lekkele ngala ron joni no ɗum fof toon est ce que ɗum ɗum ɗum taga ha mbaɗen développé kankalan to yesso joni ko ɗum mbimami o an han si ami oppose ma question goto si tawi an han a woni président han exemple an ta woni président ta ande o watta ano ñaago makisal <laughs> o watta ano ñaago makisal si tawi no han ko an wonno président han hoɗum mbaɗa nannoɗa fuladdu ko gandiranta sukaɓe buɗɗarano fuladdu jaaha émigration voilà a haali gonga allah ala ko hattanani wawani wadde allah i wawi wadde i hattani wadde no mbiɗani ɗum ko du'a woni wonde président kono noon ɗum ko ko asa herdum allah ko yeɗananma madum a yeɗanama tan ka wonalla budda ko ka goddo eri awa wara, es ce comprendre donc ko bid ak no mbiɗa ni souvent mi arsar rek e commune to meden toto meden pour immigration en général mo waɗa mo daro kala lesinta waɗaka taleji mo no en keɓ ɗum hakunde wasadu e hakkunde pirada ɗum wa wa wasadu yahara ko watu parumba yaharako piwaɗe diyam ah. oro oro oro oro ɗo poɗɗa wadde 30 minutes tan koye deux heures tan mbatta ɗumen plus de deux heures tan mbatta 30 minutes plus de deux heures tan lawol ngol fof ngol yakkima courant ala ron ko courant ala hono bira immigration clandestine wadno stp min men kala men men bawara jusqu'au kalnereɓe ɓe mbawɓe ɗum wadde ko be mbawat dum wadde menen ko men mbawi men kala men kebi ha men jossumi ko komi ala haydara hono ko bawra wadde ko bawda a yii yan kala ayi fenande yam mbiya ko fenande ayi gonga bi ko gonga woni ko dum mbawɗa wadde heddi ko gonnanɓe ɗum be ɓe mbawat ɗum wadde courant min ñaguiro makisal si mo nana hante mo nani hen bo andu courant min ñaguiro wasadu commune wasadu o piu courant ha kawne sare am de kawne est ce comprendre so woni makita na kam man talimen pala hakkunde hakkunde kabendu gudron kalan hakkunde kabendu pirada wade tali hakkunde kawne e kuma adresse ha gudda kolda est ce que mbadde tali tali tali dabo yoto yotto lawngol donc gudron men pala kalan e tali wade pont ha ko no be badi ko mi nani ko be be jahi be bulirima kono ko minis minis minis o e magisal bo ɓe bolirima maɓɓe be, ko ben keddi ah, hala politique dal non hala politique ay bo fana hala man bo yiɗa do wata politique est ce comprendre non mais faala si ano si si par exemple maire ji ɗi ɗi mbawi wiide yo jaahi tawa ɓe jahani mhm. tekalal mi nyaagi kala hunde wore kankalam maire ji ɗi commune pakour commune parumba commune wasadou euh, commune euh, jalajan. lenkeri laddende ko ladde bande barke mm-hmm. no en gartoyat ɗon en gartoyat ɗon spécial pour ɗon ha déjà ladde nde déjà nene en gartoyande eh, spécial joni non, euh, euh, wodi ko heddi ko gandiranta c'est très très important ko dum han min gaddani on do spécial dum woni tindi ka tindi e taltali Mais anda saaji on andi tindi ko yire tindi ka tindi ko les bons lippon <laughs> ɗum ko affaire fuladu dum <laughs> ko eɗen goodi ɗum fulɓe goodi ɗum a fami ɗum ko fulɓe goodi ɗum ko cosar meɗen heetawa donc har min addani ma ɗo ɗiɗi ta noon di yaawi wala nga léeb man Maodo xam nga ban question laa lay laaj mais bu njëkk ba ak léegi am na changement ndax bu njëkk ba dañ doon wax suñu maam yi taluñu woon dugg école ak jàng ñoom tool ba rek lañ taloon euh, ak kër ga mais léegi boo demee développement am na fa parce que xale yëpp dañoo jàng en ñoom bu ñëwee fii sax ñoom ñoo ñuy gën a impose ko la Maodo man lu muy làq sax mënu ma ko làq ah. <laughs> effectivement waa nga dëgg si suñu suñu côté. macha allah jàng bi gars yi ñu ngi jàng sama moroom yi ñëpp yeneen ñi am nañu am nañu emploi yeneen ñi mu ngi continuer seen étude comme continuer seen jàng université yeneen ñu ngi si formation macha allah bari nañu. est-ce bari nañu ñuy jàng te ñi ñëw encore ñu ngi ñu ngi góorgóorlu ku ne daa gis moromam ma la magam tekki mooy que dañu bugg a tekki loolu permettre na gars yi eh, di di di di jàng affaire yooyu. loolu moo tax jàng am na solo. moom mooy wan ni changement am na fa parce que tey boo gisee sa sa mag mu avancé te si jàng la jaaree yow tamit foo jaar si tànkam ngay topp pour que ngeen mën a développer yéen ñëpp waaw. dëgg la donc euh, musidɓe on calminaama onon fof euh, mawɗo mi tinnama ɗiɗi ah. kore kifiri kore a yawatde kore kipiri kore e sana timi sana kono sana ɓuuri judde sana anda ɗo mawɗo wona a pullo de ok ok do ala joni aɗa wawi wadde déjà baynoɗen eh, téléspectateur ji par ce que déjà eh, ko kanduɗen ko yoni heure meɗen o yoni donc mi tenkinama seeɗa mbaɗa ziare yimɓe maɗa ɓe salamu aleykum mi salmini e eh, musidɓe mene onon taw mi salmini on mi mini joma tele o ene mbo ɓuural e kisal ene ñaganimo tele mako o waɗa mbo télé premier tele di Senegal, hata adna fof foof laaran hata e, e direct yama do wanta ko de million dari en sa wattu goro yo allah horaki dum allah e wawi wadde enen oke oke wala mangi mangi ñaan mangi ñaan yalla ñaanal borom kër gi borom tele bi na yalla may ko yalla atanna parce que yàlla mu ne wa mulku samawati wa ma fil ardi man zal lazi yabsahu fi nga xam ne eh, nguur yàlla bu nekk ci kaw ci ci kaw asamaan ak i suuf loolu ci yàlla day mel nii eh, benn benn puso nga jële nga teg ko sa loxo doo ko yegg sax loolu yàlla ku mun a ku attan loolu attan na may kii jur borom kër gi télé bi mu nekk premier télé premier télé du Sénégal bu fekkee émission bu koy def rek eh, émi émission boobu ay million million nit ñoo koy ñoo koy seetaan yàlla attan na ko sodum yawri mi tamit Cerno am xalifa am eh, Cheikhul Murabbi am ceerno moussa mbaalo enen calmina khalifa am mo khalifa tidianiyankoɓe khalifa fayda tidianiya e cheikh alhaji cheikh ahmada tidiani ibrahima nias e medina baye eyyi mi salmina cheikha zeyda mariama nias mi salmina ceerno moussa mbaalo wasadou min salmina yero dongal en min salmina mulla en allah yurmi yaafo ɗumen mi salmina baba an bari ñappael e binta ñaaƴo e debbo am o binta <laughs> binta balde fof mi salminiɓe mi salmini ceerno salif en foof inchallah vraiment jarama euh, déjà euh, précise tv onon fof on calminama hay goore e moɗon accaka woni pullo woni ceɗɗo woni badjaradio woni jolfo o hay goore e moɗon accaka déjà voilà si min kaali émission amen o banta fula du han woɗi ɓe gandiranta e darani télé o en direct mais woɗi ɓe gandiranta émission o gasa rek tumani o taɗi keñani yaade youtube walla e keñani yaade facebook vraiment euh, ha baɗa partagé lien ji ɗi vraiment yimɓeɓe fof mbawa larde émission o donc wodi be gandiranta hen han ko mamen bada be remercier euh wayno ousmane neymar ni depuis dakar vraiment ko pullodimo ko neddo mo gandiranta ɗo émission o banta fuladu euh, vraiment mais, calminima en kankala minen lando si tawi ko jam tan gonɗa ko wayi no euh, fatuñani kankalan ko on koɗo cees ɗo déjà woni ko ɗo mbo kala mo salminama nen kura en ha ummi en ono, fu on calminama hay gore e moɗon ami en kumba en hay gore e moɗon accaka vraiment onon kala on nangi he émission o tigi tigi miɗen ñaago on ɓeydon nangude e émission o dak émission ko enen bokki dum sadio ma guila e ñu ngi tagoto si émission bi mi ngi bëgg jeex euh Maodo ñu ngi lay sante bu baax di la gërëm li ngay ñaxtu mom xamna Macky Sall dina ko dégg inshallah allah mooy tali beeg lampe bi ha ah. <laughs> yalla mën nako ta dina ko def inshallah borom télé bi tamit ñu ngi koy ñaanal comme li nga wax rek télé bi jëm ci kanam. may nuyu sama borom kër monsieur Diène di nuyu Abba ak soxnam Mariama di nuyu ñëpp di nuyu sama yaay sama papa. Eh, dulu nuyu sama jabar nak dama bëri jabar nag ma ngi nuyu ñëpp bàyyuma kenn <laughs> ok banta du banta ko banta moɗon ɗowdi ko ɗowdi moɗon on calminama inshallah rabbi ha alarba goddo e invité goddo e émission goddo fem goddo on calminama musidɓe fuladu musidɓe africa musidɓe pacana pakka o balanta kunda on calminama